dama ñëw set ci xarit bi d'abord dama amoon ay relation yu yàgg ak moom mu nekk nitu diine te kër gi ku fiy ñëw aussi man de dama bëgg toujours di doxal li nga xam ne mooy sunu cosaan mooy sunu aada mooy nit sooy mbébét wala sooy sumb dara nga dem ci këru diine yi d'abord waxtaan ak ñoom wax li nga xam ne moom nga bëgg ci sa réew dama ñëwoon pour ziare ko comme ni ma leen ko waxee parce que yàgg nañu ñaareel bi pour wax ko sama ambition pour le Sénégal waxtaan ak moom ci réew mi loolu moo doon sama tànku tey. ndax ambition boobu dina la yóbbu ci nga laaj bopp réew mi. waaw xam nga fi mu nekk fii ñaar fukki fan ak ñaar yàggatul bu ñaar fukki fan ak ñaar incha allahu rabi danaa wax sénégalais yi ndax. damay dem élection présidentielle wala du ko dem ñaar fukki fan ak ñaar kay yàggatu. ñu bëri nee nañ euh, yaay nekk euh, maanaam euh, wol wollu wollu PDS. Hmm. maanaam yaa leen di wollu ji ci comme amatuñu candidat. Hmm. yaay yow yaay doon seen candidat ndax loolu mën nga dëgg. xam man dama respecté bu baax nit rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci PDS tey nekkoon ci PDS démb. te ànd ak président wadd ba mu indi leen fi mu leen indi dama respecté ñooñu trop moo tax bu ma déggee nit ñi di wax plan B la ak plan kii nit nag ku nekk mun ngaa wax li la neex wante nag sama respect bi ma am pour ñooñu duma may may commenter sax loolu wante ki ma xam man. xam ndax man nit dana ma yóbbu defloo ma lu ma loo xam ne du méngoog li nga xam ne moo nekk suma xalaatu bopp. mais da ngay dëggal wala da ngay weddi sa gise ak njabootu waatu fële Qatar. damay. dëggal wala da ngay weddi sa gise ak njabootu ñetti waatu fële. xam nga li ma la wax nee naa la le 22 kay danaa wax le 22 kay danaa wax.